Abdoulaye Thiam ñu ngi lay nuyu di la dalal. maa ngi leen di fay. nga jiite association professionnelle des régies publicitaires euh, bu yàggul ñu dégg leen ngeen génn euh, di ñaawlu yàq gi nga xam ne def nañ ko ay panneaux publicitaires euh, ñi fi nekk doomu réew mi diggante corniche ouest ba ca Patte d'Oie tey jii mbir moom fu mu toll. waa tolluwul fenn ñun daal gis nañ yàq lañ suñu yëf fekk nañu un bon jour jël suñu affaire moko ko yàqate ko ah ci loo xamante ne amul bopp amul genn hmm. la preuve soo demee foofu ñu yàqate ay garab su ndaw lañ sa def garab yi sax ña ngay dee foofu. Hmm. donc loolu lañ ci am voilà. Euh, tey euh, comme ni nga ko waxee euh, yeneen ay concerné yi waxuñu leen dara amuñu ci ndax da ngeen yéen a ngi jéem a laaj ñu bañ leen a tontu ci lu waral ñu génnee seen panneau publicitaire yam nan la demee. ñoo ñoom lu ñuy wax ñoom mooy nee nañ dafa am pollution visuelle maa la koy wax léegi si nasaraan. Uh-huh. xam nga nit moom soo jàngul dara moom da nga siy maanu. Mm-hmm. loolu du pollution visuelle pollution visuelle mooy immeuble yi ñuy tabax si corniche bi. Mm-hmm. teree ñu gis askan bi géej gi teree fexe ba askan bi mënut a bànneexu si géej gi. Mm-hmm. pollution visuelle mooy fexe ba nit ki li nga xamante ne suñu borom moom la ko may comme. Euh, nature nature. waaw nature. mu mun ko bénéficier wu loolu mooy pollution visuelle. ñoom te yéen jàpp ngeen ne am na ñeneen ñu def pollution visuelle te waxuñu ko. waaw. Mm. bëri na. ok bëri donc pollution visuelle dem na ba ci fil de haute tension. Mhm. fil de haute tension sax day def pollution visuelle soo demee autoroute à ay fil de haute tension ñooy traversé autoroute à péage bi loolu pollution visuelle la. Mhm. Mhm. Ah, su benn pont teree nga gis Euh, li nga war a gis. ci mhm. mais pollution bi la mhm. donc loolu mooy problème bi ñoom encombrement la ñuy wax encombrement bi nag dara indi ko lu dul acte trois bi seen maire yu ndaw yi ñoo fi nekk jël ay autorisation jox ko Samba ak Demba chauffeur yeeg maçon yeeg euh, ainsi de suite loolu moo indi problème bi te ñun ay la yëwen ñun suñu association bind nañu depuis deux mille depuis douze ans ñu ngi bind. Mm-hmm. bind nañu ville de Dakar bind nañu ministère de l'urbanisme bind nañu ministère de la communication bind nañu lépp luy autorité bind nañ ko même président de la République bind nañ ko pour wax ko ne lii su continuer nii kenn dootul mën a dox ci mbedd yi parce que lii mënut a wéy. Mm-hmm. benn mm-hmm. ñaar y tout un temps de danger parce que publicité outdoor mooy maanaam publicité ci mbedd bi dafa am euh, euh, mëninam. soo gisee panneau yu yàqu yi nekk si mbedd bi c'est parce que ñi ko yor xamuñu si dara. doonuñu sax ay entreprise ne day yor saakam rek ñëw ci maire yi ko ay autorisation loolu la ñu war a bàyyi ay école ay ñoo xamante ne jaay téléphone ay ñoo xamante ne ainsi de suite ainsi de donc euh, ñoom ñoo yàq loolu ñoom ñoo ko def soo waxee ñu naan dañuy wut recette mais c'est un faux problème c'est pas vrai. ñu dégg leen ba ngeen di jàkkaarloog taskatu xibaar yi ca ëllëgu ba mbir yooyu lay amee ngeen wax ne euh, li ni dañoo génne seen i panneau ngir andi fii yeneen pano yi nga xam ne ay doomi euh, yeneen i réew la ndax li ni mel moo am jamono ji da ngeen cee teg seen kët. waaw li ñu jot a tegagum suñu bët mooy. Mhm. yàq nañu suñu yëf. Mhm. bàyyi fa yeneen yëf. yàq nañu suñuy totem yàq nañu suñuy panneau bàyyi fi ay panneau ay ay ay ay ay bus. Mhm. mooy fi nit ñi si arekaar mhm. publicité la ñuy def comme ñun. Mhm. arekaar yi ñaari place la am li si des yëpp publicité la. ñoom kii nañ ko parce que seeni ñooñ la. du dëgg. bàyyi yàq nañu suñuy totem yàq nañu suñuy totemu client bàyyi fi totemu Total bàyyi fi totemu Shell bàyyi fi totemu Radisson bàyyi fi totemu Sea Plaza bàyyi fi totemu teeru bi ainsi ñun loolu lañ gis. beneen bi mooy. ñun ci monde bi dañ ci jëflanteeg ñu bari dama ne JC Deco bu mu fi bëggee ñëw ay ati si ginnaaw même circuit bi la doon laaj. Mm-hmm. waa de Deco dañ leen fii gis ñuy ñëw di tambambaalu. Mm-hmm. parce que ça les intéresse. moo tax ñuy alerter opinion bi pour wax leen ne dañoo bëgg a jëlaat suñu yëf jox ko ay tubaab. Mm-hmm. te tubaab yooyu lu ñu mën gis mën nañ ko. ñun dañ nañ ba wax état bi wax leen ñu lan ngeen bëgg ñu wax leen niñ koy defee ak naka loolu lañ mën naa nag dañ dul nangu ñun sénégalais chaque fois ñu jël ñu sànni ñu si mbalit bi di indi ay tubaab ak ay japonais yu kenn xamul loolu jaaduwul si say biir wax euh, yaa ngi koy wax ne depuis douze ans yéen a ngi amal waxtaan waxtaan gi nga xam ne da ngeen bëgg ñu tëggaat ay mbir euh, daal di harmoniser tamit ay mbir yu jëm ci projet de loi bi euh, wax sax ba tudd code publicité li ni mel ndax dafa wundu ne secteur bi amul harmonisation. non secteur bu amul harmonisation amul Sénégal. Hmm. Sénégal même tëgg sabar dañ ko réglementé. Hmm. mais ça dépend. mais ndax day ndax day ndax la ñu réglementé danañ ko jëfee. moom laa la wax c'est-à-dire que règlement ak loi day fekk ña ko war a jëfee jëfee ko. d'accord tey jii soo demoon ville de Dakar am na une réglementation locale de la publicité. Hmm. notamment des panneaux autoroute dañ ko lotissé woon deux cent mètres yu nekk moo amoon panneau maximum. ba corniche. ñoom bi ñu ñëwee ak seen ak ak trois kasaw kasaw bi ci la jël ah di jox ay chauffeur rek ay maçon ken yu kenn xamul mm-hmm. Mm-hmm. mais tout est lotissé mm-hmm. tout est lotissé et nit ñi ñu xëy ñu xëy rek am ay panneaux am na ay panneaux yu fi def quarante ans yoo xam ne barke Demba Ndiaye fekk nañ ko jël ay seen i engins yàqate ko panneaux yooyu si ñun ñun si moom lañ jàngee panneau bu fi def quarante ans c'est parce que am na këyit xanaa ma ne état bi nekk ko fi ba euh, depuis quarante ans panneau bu fi def dix ans ana ana ana waa Descos fu ñu newoon. Hmm. donc lépp am na fi maintenant day fekk ne su fekkee ne nit ñi nit ñuy jiite su fekkee ne dañ leen jox mbir ci xamuñu ko dañuy ñëw si ñi ko xam ñu gindi leen loolu mooy réalité bi. et justement euh, yaa ngi koy wax sànq dafa am ñu ko yellool mais ñoxor njaay bu jóg ñu jox la nga def sa publicité euh, li ni mel ndax amul cahier de charge bi nga xam ne mooy wax fii nga yem ak lii ngay def. no ñoxor ñaay bu jóg dañ koy jox tableau. Mhm. mais pas publicité. waa panneau panneau publicitaire. waaw loolu mooy wane ne. Mhm. maanaam di nga teg ci mbedd bi. loo xamante ne amul benn norme. Mhm. boo xamante ne dina dina dina méngoog norme yi nga xamante ne ñun moom la ñuy parce que ñoom ñu ngi yàq ba ñuy yàq xam nañu panneau yuy panneau. am na ya am na panneau yoo yàgg nañ fa lool balaa ñu koy yàqate ah. parce que c'est bien fait. am na yoo xamante ne euh, euh, deux minutes lañ ko dindi mais yooyu yëpp ñoom dañ ko war a wax si ñaar bu ne lu ñuy wax dëgg si ñoom du dëgg. Mm-hmm. ndax am na norme wala amul norme mais am na norme mais norme bi ñoo ko respecté wul ñoom ñoo ko salfaañe ak seen i maire aujourd'hui mënuñoo fexe mënuñoo euh, maire boo xamante ne këyit rek ngay jot xamoo mm-hmm. ndax ki la jox këyit bi entreprise la. xamoo ndax jinne la xamoo ndax malaaka la xamoo ndax lu muy war a publicité hmm. ainsi de suite ainsi de suite xamoo ndax il est en règle avec notre euh, notre code de, des obligations civiles et commerciales xamoo dara nga ñëw jox ko demal teg cinq demal teg dix demal teg nangam léegi ñun lotissement yooyu ñu defoon si lañ doon surukal ay panneaux ba diggante deux cent mètres yi au lieu d' avoir nga am deux cent mètres yu nekk cinq panneaux cinq panneaux yooyu nag soo ko joxee koo xamante ne ah pic ak amu ko. kon ñoom da nga bëgg ñoo njëkk a jaxase mbir mi. ñoom ñoo ko salfaañe waxuma la jaxase salfaañe laa la wax. Hmm, d'accord ñoom ñoo ko saboté. Hmm. te nit ñi ñu ngi dem si ay élection amuñu fulla au lieu de yàq alalu nit ñi au lieu ñu dem toog xool ndax li ñuy def baaxoon na wala hmm. baaxul non non dañuy yàq di def ay activisme il faut que les act les ministres là arrêtent de cet activisme là. defar réew defar réew du yàqatee du ay engin defar réew organisation la defar réew waxtaan la defar réew jokkoo la. lépp dañ ko basé si xam-xam. su ñu amul xam-xam nañu dem wuti xam-xam wala ñu dem wuti ñeen ñu am xam-xam ñu hmm. parce que tey jii j'ai l'impression que ministère de l'urbanisme euh, ministère euh, ministère reboisement la Ñoxor Njaay Pate Njaay ñoo jëmbat garab alors que du loolu reboisement ministère de l'environnement moo ko a def. dëgg man soo ma jëlee benn espace ne espace bi dañ ko mën a valoriser même en tant que publicitaire dama fay def ci port boo xamante ne suba dina mën a am njariñ et indi ressource ci collectivité pour ñu defar espace boobu pour nit ñi mën koo jëriñoo loolu mooy publicité waaw li ñuy def nag ku ñu ko ci dëgg teguñu ci ko yoon ñun nag nañ leen yóbbu ci yoon balaa ñoo leeral mbir moom le euh, tey ci xayma ñaata ngeen yàqule tey it association bi ngeen yor ndax am na ay nit yi nga xam ne maanaam ci nombre euh, ñoo ci am yàqu-yàqu yooyu ci euh, distance boobu nga xam ne moom lañ fi tudd sànq muy corniche jëm ba Patte d'Oie non ñun suñu association à en fait c'est vingt régies hmm. ah donc vingt régies ñi bon y a les anciennes régies ak euh, ñi def nañ si trente quarante ñi vingt dix ainsi de ak xale yi nga xamante ne jotoon nañ ubbi fii ak at yi passé hmm. ñaata ah, panneau yooyu ñoo yàqu voilà li yàqu euh, ñu ngi doon estimer première opération bi ba euh, trois cent cinq cent millions mais là là bi ñu xoolee lépp lépp lépp lépp mi ngi jege huit cent millions jëm un milliard peut-être de de d'accord dégâts dégâts Mhm. nga junj ko ne di ngeen dem ci yoon tey fan ngeen ci toll bu dee. Euh, ah, loolu loolu loolu suñuy suñu suñuy avocat ñu ngi ci parce que dañoo bari donc euh, ñu ngi ñu ngi liggéey pour mën a yóbbu affaire yi constat yëpp def nañ ko lépp def nañ ko. Hmm. ñoom lañ ñu jox comme këyit. Ah? Hmm. seen communiqué de presse yëpp jox nañ leen ko ne lii lañ ci am ñoom ils vont voir avec euh, la loi. bu weesoo yóbbu yoon bi ndax dafa am beneen plan d'action bi nga xam ne yéen a ko tëral. tëral bi mooy xeex pour suñu réew. jéemal ay tubaab wala ay étranger duñ ko def moo tax dinañ préparer benn marche avec toutes les forces vives de la nation le 3 janvier. Hmm. parce que ñoom nee nañ le 3 la ñuy commencé VD loolu du ko nangu parce que balaa ngay commencé VD day fekk lañ la joxoon bu njëkk nga motale ko nañu dindi li li ñu leen joxoon circuit bi ñu njëkk a def corniche panneau yaa ngi fa écran LED yaa ngi totem yaa route de l' e euh, totemu Shell yaa ngi fa totemu Total yaa ngi fa ainsi de suite ainsi de suite abri bus yi nga xam ne publicité rek la ñuy def ko dañ ko dindi balaa ñoo yàqal ñeneen. Mhm. loolu mooy dëgg. Hmm, d'accord ñun nag dinañ organiser marche woo nañ ci ñëpp mooy le tout ce qui est mouvement activiste tout ce qui est association tout ce qui est mouvement religieux tout ce qui est euh, parti politique pour que ñu ñëw wax à la face du monde que ñii kumba am ndey ak kumba amul ndey et c'est malheureux que bu mu doon ay gendarme ñoo koy def. kon mbaa ngeen ci woo ministre yi euh, ñi nga doon arti sànq pour ñu bàyyi activisme bi. ministre yi. Hmm. non ministre yi kañ ñoom xaj na ñoom dinañ xoolaat seen bopp. <laughs> parce que mënuñu la jox ministère ne la tey da nga war a amee na da nga war a organiser euh, maanaam presse bi. Uh-huh. rajo yi. Mm-hmm. mais xanaa doo fekk nit ñi seen rajo ubbi bunt yi dajji ko xanaa di leen woo ba ñëw ñu ñu wax la lii xamuñu si dara. li ñu ciy def yëpp xamuñu ci dara xam nga lan lañ xam. te histoire de euh, président day ñëw Padois dafa war a am clean day nee na benn panneau bu fi nekk alors ñoom ñu jël yëpp yàqate yëfu jàmbur yi. d'accord loolu mooy loolu mooy la réalité et c'est ça l'activisme activisme bi mu lay dafa am fu ñu ko wéer mm. Abdou Karim Fofana def fi ñaata yan action la fi def di fanaan ministre buy fanaan mbedd bi si mbedd bi si tali bi ah di naan da ngay baleeg yooyu ñun soxlawuñu loolu gis nañ ko fi après fu mu mujjee demal stade Léopold Sédar Senghor lañ fa defoon si ay millions anam fu mu mujjee. d'accord c'est ça la réalité. Mm-hmm. nañu bàyyi activité dem liggéey te liggéey nag dañoo toll si jamonoy xam-xam. Mm-hmm. ñi dootuñu ay bàyyi ma jamonoy xam-xam. su fekkee ne amuñu xam-xamu defar ce qu'on appelle l'urbanisme commercial mhm. ñu ñëwee ñu jàngal leen ko teg ko ci fu wér ñu def ko su boobaa sénégalais yi jugé euh, sëñ bi Abdoulaye Thiam jiite association professionnelle des régies publicitaires ñu lay jaajëfal bu baax a baax jërëjëf soxna